nit ñi ci làmb lañ la gën a ràññee. daanaka bu làmb daan am. Euh, da ngay génn def say sorti mhm. ku war a daan nu mu war a daanoo sax da koy wax. Mhm. yooyu yëpp mais gis nañ ni peut-être làmb moo amagul mais daan nga wax ci yeneen i wax. Mhm. gis nañ ni léegi euh, euh, géej nañ laa dégg loolu comme mam suñu maman daal audace bi mu amoon toog ci télé bi di wax lu ko saf mm. ah? <laughs> gëj nañ ko dégg loolu lan moo xew eh, danga danga da danga da nga da nga da nga yi dañoo dañ laa wuy seetul wala danga nga mën a tut seet wala gars yi dañ la menacé lan la lan moo xew wala gars dañ la noppiloo lu xew <laughs> <laughs> loolu yëpp dara amu ci waaw kon il faut nga wax ak bi taalibe sëñ Tuubaa nga jàkkaarloo nii de man a ko taalibe Cheikhul Khadim nga jàkkaarloo nii de ki yàlla bëggal boppam ba jël tempon alxuraan def ko fii ci sama pooj bi mbindum alxuraan nga jàkkaarloo nii de macha allah lan lay ragal te yàlla nekk fi la déggatul ma ne xam nga du tout le temps mhm. yéen bu ngeen waree ñëw ci man journaliste yi dama koy xam caméra damay tiim ba mu caméra tiim yi rek damay xam ne instant yi journaliste yi ñoom seen bopp dañ ma woo mais su ma wat wax du ma wax. doo wax bi neexul déjà maa ngi ñàkk ni xam nga wax moom neexul dangay wax sa xol si sa xool di jóg. Mhm. xam nga neexul. Mhm. mais sunu borom mooy dogal ngeen xam ne ni selbe selbe yàlla la selbe du selbe kenn ku dul selbe yàlla. selbe du selbe kenn ku dul selbe yonent bi selbe du selbe kenn ku dul cheikhul xadim ak cheikh ahmada tijaan yi parce que sama wàllu maam ki jur sama yaay. Mhm. fayam boobu yëpp ay tijaan lañ. sama yaay ku jigéen ki ko jur mooy mooy murit dama am wàllu tiijaan am wàllu murit comprendre nga mm-hmm. nekkul ne da kenn dama xoqatal sax nag ndax dama dew ma kenn laaj ma kenn avis mm-hmm. awma euh, staff kenn xoqataluma mbindeef buy dund xoqataluma loolu lañ bëggoon a xam. daraje laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mais liñ ma gën a ràññee làmb instant bi tëggut bu làmb tëggoon suba. tey ji da ngeen fii ñëw ma ne leen nii lay demee su ma ko gisee. mais actuellement làmb tëggul waaye coow li bëri na Sénégal li fi xew yëpp macha allah dañ la daan gis souvent ngay génn di wax waaye gisatuñ la aussi nga génn di wax. si ko waral démb rek. démb ci guddi rek génn naa Dakar Buzz. démb. gëjoon nañ laa gis. non non non non kon yow kon yow dooy suivre YouTube yi xam nga léegi suba. Uh-huh. suba xaama digestive yi. maanaam ni ñu daan gisee chaque jour chaque jour nga nekk ci wax non xam nga man yéen may soxla rek di ma di ma seet si télé. télé dañ lay invité. man kenn amul maqaama ma ji la woon naa la génne ma sa télé. pourquoi yaa boo ma soxlaa nag soo ma woowee su ma amee envie dem damay dem. parce que tamit. naa su ma am suma empreinte. et eh, pourquoi may dem di wër nit naan ma génn. man bu dee bës def naa ko en 2012. mais seet baa ngi dox ba bu baax lii nga toog ci seet la jóge añ bii ma añ. Mhm. ci seet la jóge aw ma borom kër ay at yu bari sama waajur bu góor génn na àddina sama waajur bu góor génn na àddina mhm. maanaam tey gii lépp lu may lekk seet bi moom ma koy may aw ma kenn kuy gaare sama buntu kër gi may ma benn saaku ceeb kon seet mi ngi dox alhamdulilah téléphone yi téléphone yi boo demee nii nii nii avant may ñëw dama doon wax ak ñi nekk Espagne ñi nekk États-Unis tout selbe selbe international la. nañ sa seet dafa cher. waaw mais. xam nga non. loo xam da nga koy def ngir yàlla lu tax nga bëgg ko cheral. pourquoi def ngir yàlla. waaw parce que. boo kon doo lekk doo naan non non non mais pas par rapport. ma ne njiitum réew mii sax njiitum réew mii sax. Mhm. tey jii buñ ko duloon fay dara wala muy fayaate kenn du am du am gouvernement. mais xam nga tey. dañ naan Sénégal liggéey bu fi gën a dox mooy seet liggéey bu fi gën a am xaalis mooy seet. Mhm. waaw parce que tey majeure partie seetkat yi yëpp. Mhm. déjà Sénégal dafa bëri seetkat. majeure partie seetkat yi yëpp euh, euh, euh, ku ci génn benn yoon ñaari yoon rek. boo demee këram macha allah wala mu yor oto wala yi di mel alors dégg nañ ni maman maman Selbé seet seetam dafa cher loolu. loolu wax la rek ku ci génn benn yoon ñaari yoon. dangay li xale yi wax naan ba fi kenn nekkagul man doom mm-hmm. taalibe sëñ Bàmba bi maa xuus daldi jàll ba may wax naan lii dina am booba kenn ñëwut a wax. mais comme. seetkat dañ maa war a ñeme. lu tax si si dañ maa war a ñeme. ndax amul benn seetkat buy taxaw saaga ma wala nga jaar wax loo xam ne wax ma loo xam ne waruma ko waroo ma koo wax. non xam nga xam nga seetkat. Mm-hmm. xaaral ba nit ñëw ci yow. nga seetal ko mais bul xool yu fi jàmbur ñu takk nit tey alxames ajjuma samedi nga ne sëy bu du taxaw. foofu laa doon ñëw maanaam la foofu laa doon ñëw ndax gis nañu bi loolu amee du ñu raay wax ji ndax. sax ci seet kese. maanaam damay yeete. parce que damaa am doom. Mhm. am naa ñaari doom. bu jigéen ak bu góor bu jigéen moo leen moo leen ubbi léegi. bu góor bi démb la fi jógee. Mhm. maanaam. Euh, comme doon yow di yow. vraiment. ci loolu la ñuy ñëw parce que bi loolu amee soxna Aïda Saliou donc moom moo génn wax li ni mel ne euh, sëy bi du yàgg yow it nga génn def réplique moom ak mu génnaat def réplique ne du la tontu max da ngay wut bës da ngaa xew yi <laughs> loolu dala wax <laughs> ma waa seetkat yi. riir seetkat lool. <laughs> xam nga selbe moom ku sañoon. Mhm. mel ni selbe. Mhm. fu ngeen jógee ba Thiès. Thiès lañ taal seen gasoil seen su fa dawle leen gendarmerie di leen jàpp ba ngeen yegg si xanaa lu ko jar rek ko ko jar est-ce ngeen ko moom woo ngeen ko seetu ko ah lu tax kon kay seen ma doom jël na ndam li taalibe Bamba bi mooy toj Ahmadou Bamba waaye waaye du man ngeen du man ngeen a ci du ci man ngeen di amoo xam mun sa numéro te yaa ma gis ma neex la nga woo ma ay wax day fin waru waru gune yi làmb ji ceex na. Eh, waaw lan nga ñu mën a wax parce que gis nañ la ci mariage yu Soumboulou macha allah nga ñëw fa def fa témoignage Ablaye Diop xaas waaye gisuñu ci mariage sa sa doom ji Mbathio Ndiaye lu xew. maanaam wallahi yàlla seede na ko barki Seydina Mohamed. Soumboulou ak Mbathio samay doom lañ. Mhm. Mbathio Ndiaye sax ñëw na sama kër Soumboulou mosul ñëw sama kër. xam nga sumbulu bëgg naa ko bu yàgg ndax ba may dem kër Balla Gaye laay gis sumbulu kër Balla Gaye mu nekk lu tuuti ndax àddina bi xam c'est pas parce que dama xamoon sumbulu di am ak moom relation sumbulu xam nga kañ laa ko mosoo laajte numéro ba mu juumee ba wax ko ko bañ koy xas moom laa laajte numéro yi ndax euh, man toujours damay xool démb duma xool tey sumbulu def na fi fii Sénégal théâtre na fi loo xam ne ci muñ daj fi ay coono yoo xam ne kenn mus ko fi théâtre mu doon loo xam ne dafay yeete kon sumbulu bu defee erreur war nañ ko comprendre ne xam ne comme ni ngay màtte sa làmmiñ mhm. mais dañ ko sot sotul kenn ku nekk di génn tip top di ko wax loola métti ma ma woo ko ne ko yow na sa xel dal mhm. man la sa yaay Selbé mhm. doon naa la fekk kër Balla Gaye boobu xale nga xëy na remarqué woo ma waaye man xam naa la bu yàgg toog nag di la seetaan ngay bégal àdduna bi kon maanaam lii du dara yàlla dina la fay incha allahu rabbi bu dara naqari yàlla dina la fay incha allah ndax lu baax li nga doon def mënta neen ñi ñiy wax nii yëpp dañoo dañoo. kon daal dafa mel ni danga koo ñaanal. ñaanal naa ko. parce que lañ ko wax naqari na ma. Mm. far yàlla ma dégg ñu ne may nañ ko juróom benn million waaye ma kontaan ci musuma wax ab laa Diop Xaas dégg naa turam musuma gis Abdoulaye Diop Xaas ak bët mm. nay leer waaye yàlla ak bakkanu sumbulu duma ci woon sax dugg. ndaw soosu di wax naan man damaa xew yi duma ko ñaanal sax mu mel ni man ndax su ma ko ñaanal mu mel ni man dana jënd këram dem màkk deux fois non ginnaaw nee na damaa xew yi duma ko ñaanal hmm? ah, maa ko gën a gis sëñ Saliou maa ko daq gis Seexul Xadim man sol bee ndaw ndaw soos di wax maa ko gën a gën a gis sëriñ Touba nañ ànd jumaa ja mu seet maay dugg te duma ram sëñ Saliou Mbacke bi muy wàññeeku di dem man mi gis naa ko sept mois avant du may bëgg di tontonte ndax dama dul moroomam. dëgg la ñu ñëwaat ci ci sumbulu xam nga tout à l'heure da nga wax ni euh, dangay nga yeete. macha allah yaa fi yaa wax ne dafa def réplique de. du ma defanteeg moom réplique ndax dama dul moroomam maa ko sut ci fépp. Mhm. ma di la xamale sëñ Saliou boobu muy dàqental na ko bàyyi. suñ saal àndut ak kuy tooñ suñ saal àndut ak kuy jaxase te li may wax nii dama ko teg fu leer man damaa dem ba jàppandal fa sëñ saali piliyaan na sëñ saali doon toog dama fa dem toog jël ke suuf ta ca garab ga tëdd ca lal ba jël ca alxuraan ja soxnaam si mu si mu nga xam ne moo ko juróom caatam mhm. berndeel ma te jàppandal chauffeur am mhm. bàyyi aboo doon sama xarit nit ki dangay bàyyi tooñ ba ma déggee ñu wax loolu man dégguma ko sax ndax ma du may seetaan lu bari ndax amuma jot ci la ma benn journaliste bu sin sunu bës woo ne ma ah am na ndaw si wax ni sa sumbulu bi ñu teg ko alxames ajjuma samedi waa ji woo ma dimanche ma daal di seet gis oto bi ko Ablaye Diop xaas di may oto bu gudd ba ma gis ni sëy bi dina neex mm-hmm. sumbulu sax moo ci gën a bëggee te sumbulu dina dem ba jël poids ci laa wax journaliste bi ma mer mu yónnee ma vidéo bi ma mer ne ko ñëwal looloo loolu ma ci dugal. taxaw nag kom yaayu sumbulu. taxaw comme tàntay sumbulu. taxaw kom magu sumbulu. taxaw comme xarit sumbulu. taxaw pour yedd boobu bu ëllëgee bu benn seetkat dugg ci loo xam ne kenn duggalu ko ci ndax moom kenn faralu ko. moom loolu rek la ma mën a wax amul bës ndax amul dara lu mu mën a wax. daa tooñ kenn seet nit ku kuñ may juróom-benn million bu sañoon bu nekkee am na doom bu jigéen buñ sañoon ñu may ko fukki million wala juróom-benn million man mi bu ma sañoon loolu waaye ndey sumbulu moo ko liggéeyee ca kër baayam ba tax mu ba tax moo mu am ko ma wax ca lu rafet moo tax sumbulu ci boppam woo ma téléphone ne ma yaay la may wax yaay damay fóot jumal ay fóot ma ne ko gis naa ne sa boroom kër ah, jël na la alhamdulilahi rabil alamin mu ma ne ko waaye nag su ma sañoon dangay bàyyi ba nga am doom mu ne ma déedéet Ablaye Diop ne ma déedéet da ñëw da ngay ñëw yendu si ma xam ne man mënumaa bàyyi sama kër di yendu ji moo taxoon ma yegg fa keroog encouragé ko ne ko nag na muñ far yàlla la ma waxoon rek yàlla may na ma ndam mayati na ma ndam Ablaye Diop may na ko oto bu bees bu gudd kon sant yàlla Mathia Ndiaye moom. Euh, maman dama bëgg tuuti rek ñu taxaw ci sumbulu si ci fóot boobu nga wax dama dégg tout à l'heure nga ne da yeete macha allah loolu am na mais li nga xamante ni dañ ko daan nëbb bu demee ba di ko fësal ci internet bi muy wàllu euh, euh, ñu jox la sa jëkkër après loolu est-ce que yow loolu ànd nga ci. waaw. mais maman lu tax. man dama waroon dem sax ca laabaan ba fecc waa dara nekku ci. mais maman loolu bu njëkk luñ daan nëbb la luñ daan nëbb la ma ne fi mu toll la rek sumbul mu toll la rek. fi mu toll da nga jàkk jëw ànd ak moom ci dafa tollu ci réew mi. dafa def buzz. mais da cee toll. fii ci koñ bi buñ fi takkoon gune jox ko jëkkëram du dem ci réseaux sociaux yi parce que réseaux sociaux yi xamuñu ko. Mm-hmm. loolu dama doon damay tontu naan ñi ñi ne woon du ko def. ak ñi ne woon da ko mën ba mu ko defee nu ñu def. kalaas gu fenkat boobu sikki moom dal na ci dënnam de bu ko waxee bu ko waxut ma ne on arrête c'est mieux loolu def sa doom boo jur bul ko def doomu jàmbur neexut rafetul fa laa yem ma bëgg nag ñu bàyyil ma sama doom jooju mu sëy sëyam yàlla may ko ci njaboot gu barkeel vraiment xale bi sonn na déew déew déew déew on lu tax gisuñu ci la ci bësu Mbathio sa ñaari sa doom jooju. non amul benn problème maanaam takk ñu ko tey suba rek ñu indil ko problème man daj maa woo laaj na diw am na seetkat bu wax nangam ma xamal leen ne seetkat boobu mu wax li mu wax du dëgg ndax xale bi dina seey ci biir kër jëkkëram jëkkëram bëgg na ko am chance góor bu la bëgg dafa neex mm-hmm. looloo ma ca dugal. man du ngeen ma gis mus leen maa gis ci benn mariage amut duñ ma ko sax wax yenn saa yi nit wax ma dañ may takk waaye maanaam ginnaaw tur wi rëy na maanaam du may bëgg di déranger nit ndax am na yoo xam ne xëjuma ci sumbulu doom doomu jàmbur la mbaacu it doomu jàmbur la may gu njëkk googu ñuy wax ne dafa bari mais kenn ku nekk sa wërsëg ñu seen wërsëg la yéene woon naa leen kenn ku ne vingt millions wala cinquante millions wala cent millions mérite nañ ko parce que ay jigéen lañ jigéen jamaa la jigéen ab jant la góor nu mu mënti mel jigéen la jur kon jigéen jooju bu ko góor gu xam valeur jigéen ba teral ko waaye dañ lay ñaanal nga gën koo mën kese ah. donc. ayca mbokk internet yi gis ngeen ko nee naa leen tey nag dañoo dalal suñu yaay ji maman Selbé Ndom dégg ngeen lim fi wax yëpp mm-hmm. macha allah moom émission moom day neex ndax ndaanaan la alors maman bëgg naa ñu ñëw tuuti actuellement Sénégal mm-hmm. eh, ginnaaw euh, ginnaaw actualité li ñu wax euh, en tant que seetkat lan nga gis leneen ci Sénégal lu neex wala lu naqari fi war a ñëw non xam nga man moom euh, lépp lu war a mm-hmm. ah, waxuma lépp de ndax yàlla rek moo xam lépp yenn saa dañ may woon mais euh, yi fi am yëpp ci ay détails la rek ay ay ñaari góor yuy sëy ay ñaari jigéen yuy sëy loolu ñoo ko yore seen bopp waaye seen waajur yi bañ leen di jur mm-hmm. loolu taxul woon ñu jur leen mm-hmm. xëy na ñoo màgg bon seen bonuk bopp mm-hmm. buñ ci wax seeni waajur dara ndax boo demee ñaari góor yu ñay sëy seen waajur sonn na seen kër baay xëy na ñoom ñoo màgg majeur dem jël seen yoonu bopp ndax kenn xëcc kenn ci loxo ne ko kaay kaay defi nangam dafa lay neex tey dalaa neex moo tax nga jël sa oto dawal ñëw ba fii dékk ma sa micro bu la neexutoon su ma la wooyee téeméer yoon doo ñëw yenn saa su ma la wooyee sax doo ma jël mm. loolu kese instant bi moo am ci réew mi am naa ci yaakaar mais amul dara lu mën lu am ci réew mi xanaa waaw. dara loo gis daal lu war a ñëw. non man man man bu ma sañoon ma sama borom lu may woon mooy jàmm rek man sa sama réew la am Sénégal la am. Sénégal mooy sama fépp ci àddina man Sénégal moom laay tiitaroo bu ma dara du fi am bu ma góor day jigéen day liggéey chômage du am. xeex sax du am asima xuloo xuloo sax du am asima xeex. yaa ngi dégg man ma sañoon jàmm rek mooy am ci réew parce que man fii laa am fii mooy sama fierté. tey jii bu ñu nee fu mu dëkk Sénégal. yenn saa nit woo ma ku dëkk États-Unis foo dëkk ma ne Sénégal yow ban pro ban kii nga nationalité nga je suis sénégalaise fière d'être sénégalaise. carte d'identité nationale la yow. sénégalaise. Mhm. macha allah. bëgg nag ñëpp nag même ñu nekk Sénégal dëkk Sénégal sax nekk bitim réew toujours su may wax euh, ci rajo bu nekk euh, buy wax sunu Afrique bu nekk états dama leen di ñaax ndax jom ak fulla ak fayda bàyyi ko Sénégal. macha allah alors maman Selbé sa dundin dundin ni ngay dundee par rapport ak euh, liggéey bi ngay liggéey par rapport ak coow li nga xamante ni vraiment bëri na ci yow wax ci naka nga koy dundee ak sa njaboot say dëkkandoo walla sa famille. non aw ma aw ma problème non. zéro stress. non pourquoi. maman daal zéro stress lay non pourquoi. yàlla ma may. li ma may di naturel mais am nañ. waa gis nañ ni sénégalais majeure partie bëgguñu la. oho oh, waaw loolu war a mën a dund loolu <laughs> sans sans gêne non non non dañuy dañuy waxtaan parce que lu ñu gis la coow li dafa bëri maman Selbé lii maman Selbé lii alors loolu. que nit attan yaa ngi xalaat euh. man damay fatu ni mbàkke mbàkke yi di fatoo. damay fatu tey maa ngi añ cinq heures et quelque. Hmm. cinq heures et quelque. bi ngeen di ñëw fekku leen ma sol yére. déedéet fatu di di ñaan ma waree woon damay tëdd. dañ may nelaloo ma tëdd. li war a ñëw bu ma tiimee dama yëg ne am na lu ñëw. pourquoi même stress waaw li yeneen bi amatoon man mën naa ko am yeneen bi fu mu juddoo du mel du màkkatal mu karama fan la fan la mujjee dem ànd ak añ ay ñoñam du Medinatul Munawara bu daan julli nuñ koy def jël ay xaaxaam mu sonal leen ñu ñëw ci Abu Taalib ne yow daal sa jarbaat bii daal ah, sa mbokk mii daal soo yeboo nga wax ne lii muy woote na ko ba su nekkee alal la ci bëgg dinañ ko jox bu nekkee ay gileem la ci bëgg dinañ ko wax bu ay nekkee or la ci bëgg dinañ ko ko jox te mu bàyyi li muy woote ne yàlla kenn la ban yàlla ñun suñu yàlla la ñu xam ndegam yonent bi la ñuy sonal di ko sànni ay xeer waaye asimaak man bu xeeb mu ñàkk fay demi waaye c'est que ñoom ni ñuy gisee man barke laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullahi yenn saa damay xool commentaire yenn saa nga gis nit wax lu bon waaye yenn saa nga gis nit wax lu baax àddina ni baaraam yi utee bii tuuti bii bii xaw a tuuti bii gën a dijj gën cee gudd bii gàtt te dijj àdduna noonu la mel yàlla mun munta yemale bu yemale woon rek kenn ku nekk mën ngaa geddu sab cër tey di nga gis koo xam ne yow tey di nga am loo añee waaye am na ñoo xam ne du ñu am lu ñu añee yàlla moo bind te yemalewul kon man toujours man li ñuy wax nañ sel ba daa am ñu ko bañ sax man loolu ñooñu seen bopp lañu ñu bañ déggoo ma de te dañu maa toog sama fauteuil yi terewuñ yow nga di ma dékk micro paas jël sa gasoil def loolu ñoom la rek seen xol la jóge seen biir la jóge daal seen dana génn seen gémmiñ mais ci ñoom la rek loolu ñuy wax ak la wax yëpp dara du ma ci laa est-ce que des fois say loolu tam leen metti. non non non non samay doom léegi euh, mag nañu. au au su ma waxaan làmb du ñu am jàmm au début. mais léegi miis nañ ko kenn ki mi ngi Casamance. kenn ki mi ngi fii. tey jii su ma wowoon ki nekk Casamance mooy may góor gi ah wala ku jigéen que dama yaay bul jël nit lii kat moo tax parce que ñoom lu ñu ma wax dama koy gis maanaam nam leen juree xam naa ko kenn ku ci nekk xam naa yow yaay kan ak kan la moo tax ma jur laa ak la ma la nga àndal yëpp man sama bopp dama koy xam hmm? mais macha allah samay doom am ñëpp problème ku jigéen ki moo leen moo leen ubbi léegi su nekkoon dafa bañ da yéeg ci kaw ne ma journaliste yi ñëw nañu waaye bu leen ubbi. waaw mais. kon daal am nga benn complicité ak sañ say doom. bien sûr bien sûr bien sûr euh, buñ ma invité fenn lu xam ne man damay tàng coow coow day daal di am. Mm-hmm. dañ ma naan yaay bul dem.